asalaamualeykum wa rahmatullah wa qul jaa alxaq wa zahaqa albatilu inna albatila kaana zahuqa waaw maa ngi déglu sama mbokk mi al oustaz jibril bu amee taxaw ci diggante bi rek pour organiser waxtaan wi waxtaan la bi moom du mel ne yenn débat yu tàng yi waaye dafa am dars buñ ci bëgg jàngale rek Euh, jombul ne dana am ñu ko ñu ci mën a jariñu ndax mën nga jël def dars boo xam ne dangay wàcce wàccee xadis yi jàngale ko direk waaye léeg-léeg mën nga koo jàngale euh, min xilaali munaqasha looloot lu jara bàyyi xel la ndax foofu sax lay gën a leere léeg-léeg ndax mën ngaa wax loo xam ni dañ naan a ah, loolu di diw weddi naka na demewul noonu su ko defee nag nga indi leeral yi ca war a ñëw kii déglu dana ci am ak ubbeeku eh, masala bi ñuy munaqasha mooy def tawassul ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi yonant bi wujjee boroomam kon bi muy dund moom werante wuñ ci ne mën nañoo def tawassul ci moom waaye bu xasee ba wuy ji boroomam ñu denc ko ci biir suuf si ñu ne kon kenn dootul defati tawassul ci moom ah loolu nag day jar a jar a xool ndax am na ay adilla yu wér yu wax wax loolu waaw loolu dafay jar a xool su ko defee bu amee ku taxaw ci diggante bi rek ñun pare nañ su ko defee ñu def ko waxtaan woo xam ne liñ ci jublu rek mooy ñuy ñiy déglu jariñu ñiy déglu jariñu du waxtaanu xëccoo wala waxtaanu wuta yay waaye waxtaanu wuta بسم الله بسم الله تعالى الحمد لله الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا يقال لغيره سبحانك الحمد لله وصلى الله وسلم على اشرف الخلق سيد الاولين والاخرين سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وعبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن بقية الصحابة الكرام والتابعين ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oustaz بكر ñi لينيو وقتان nuyu أجوكي تواصل ci jëmmi ci yonantu bi alayhi salaatu wasalaam baada wafaatihi rakkis jayidan fi haasihi alkalima baada wafaatihi borom bi tabaraka wa taala daa wax ci alquran ne ma kaana li basharin an yutiya allahu alkitaba walxukma wannubuwata summa yaqulu linnaasi kunu ibadan lii kunu ibadan lii min duni illah walakin kunu rabbaniyiina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun borom bi tabaraka wa taala dafa ne jellul ci benn mbindeef gannaaw ba ko yàlla gindee jox ko téere ak ate muy wax nit ñi ne leen topp leen ma jaamu leen ma day leen di tawasul ci man day leen di ñaan ci man man maay lépp mu ne yellul ci benn yonantu muy def loolu waaye day wax nit ñi ne leen nekk leen ay jaam yu ñu gërëm ngeen ommatu topp ci borom bi tabaraka wa taala wala yamurukum an tat wala yamurukum an tattaxisu almalaikata wannabiina arbaaban a yamurukum bilkufri baada is antum muslimun diguluñ kenn ñu topp ay malaaka wala ñu topp ay yonent def leen ñuy boroom arbaaban nag dafa yaatu mën nga jël nit def ko looy ñaan jëmale ko ko moom ngay ñaan dégaase yàlla fële loolu dafay dugg ci jël nga nit mu nekk arbaab min dooni la borom bi tabaraka wa di wax ne ndax da ngeen di jàpp ñooñu ay yamurukum bil kufri baada is antum muslimun tawasul gannaaw ci jëmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw ba mu fi jógee loola gisuñu addi la buy loolu te nag bu dee ne ci lislaam dañuy wax ne jaami yàlla dafa am qaida buy wax ne jaamu yàlla kooku tawqifiya la al aslu fil ibadati at tawqif jaamu yàlla kooku dangay taxaw lu dul dafa am ay nusoos yuy ñëw di wane na jaamu yàlla gi mën nañ koo def te ñaan nag ci jaamu yàlla yi la bokk borom tabaraka wa taala nee na walillahi al asmaul husna fadauhu biha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 mbokki waqul jaa alxaqu wa zahaqa albaatil assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu sayidna jibril ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ñaanal tawfiq di la ñaanal itam aku gindeeku ci masala yëpp rawatina ci masala bi may wax ak yow am na ay aaya yoo jàng nag waaye xamuma dëgg-dëgg lu mu jotee tawasul aaya yooyu euh, bu fekkee ni li nga ci jublu mooy ki ngay def ci moom tawasul danga koy jaamu kon baye boo nga xam ne ña doon def tawasul ci yonent bi ca ba muy dund kon dañ ko doon jaamu ba muy dund kon ak tawasulu ak jaamu ki ngay def tawasul ci moom du benn yonent bi sallallahu alayhi wa jamono bi muy dund ki def ci moom tawassul su dee jaamuwu ko ca tawassul ba su génnee àdduna itam ku def ci moom tawassul jaamuwoo ko waaye bu dee mi ngi dund baax na bu fekkee faatu na léegi kon da koy jaamu bu fekkee loolu nga jublu ci aaya yooyu nga jàng kon aaya yi jàng nga ko ci lu ko taxul a jóg ndax wa qaala lahum nabiyuhum inna aayata mulkihi an yatiyakum أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لول ياكارو ماني إيه، ياكارو ماني كن دانا جابني مبوبيا مبوبيا يونت على هارون دون سول اك ياتو يونت يالا موسى اك دالام يا Eh, ñii dañ ko doon jaamu bu ñu daan def tabarruk ci taabut ba ko dencoon léegi nag tawasul moom dafa am dalil yu leer naññi du lu ñuy làmbatu def tawasul ci yonent bi gannaaw bu faatoo loolu dafa am dalil yu leer naññi eh, damay bañ audio bi gudd ba mu ëpp waaye boo soxlaa dalil bi rek ma daal di ciy ñëw ñu munaaxasa ko ñu munaaxasa ko ñu munaaxasa ko incha allah وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أبو بكر أيوة إنك خبنا نجكنا نكو جانا لأن كبرام خم خم يدني ووهنة دا أمون في الصلاف الصالح نيو خمنا دنجون وهنة دفا أم أي نيد يو خمنا دنجون نيان كان أقوام يدعون المسيح يدعون المسيح والعذير والملائكة fa bayyana allahu lahum anna almalaikata wal anbiyaa laa yamlikuuna kashfa durrin an um wala tahwila daa amoon ci ñoo xam ne dañ doon ñaan yonte yàlla isa usayru malaikati di ñaan malaaka yi di ñaan lenn ci euh, yonent yi borom bi tabaraka wa di indi aay di leen di leeral ne lii ngeen di ñaan ak lii ngeen di soxla nekkut ci loxo ñi nga xam ne ñoo ngi koy ñaan kon ay yooyu loolu lay leeral waaw su ko defee dalil yooyu ngay wax indi ko comme yow yaay saxal ne lii am na ñun dañuy xaar ba nga indi sa ay dalil ñi ngi wax nag baada wafaatihi soo indi dalil bul fàtte baada baada wafaatihi loolu mooy mawdoo bi insha allah kon bu fekkee am nga dalil yu wane ne mën nañu def tawasul ci yonentu bi sallallahu alayhi wa ala gannaaw ba mu fi jógee su ko defee nga indi ko waaw kay sëriñ Jibril waaw ñoo ñi nga xam ne dañ doon dañ doon jaamu malaaka yi wala jinne yi wala lañ doon jaamu noonu loola ñu jaamu leen ci bi ñuy dund ak ñu jaamu leen ci bi ñu dundul ñooyam loolu moo tax ma jàpp ne aaya yi fi nga indee du foofu ndax jaamu moom yàlla dong lañ koy defal ku dul yàlla kenn du la jaamu moo xam yaa ngi dund moo xam dundoo loolu moo tax aaya yooyu mënula dugg ci tawassul ndax ak tawassul ak jaamu ak al ibaadatu duñ benn waaw léegi nag kon bu loolu leeree ma ñëw ci indi ay tegtal ci tawasul boo demee ci tabaraani ci al mucjamul kabir usmaan ibnu xunayf mi nga xam ni moo nettali woon xadiisu darir silmaxa sa doon eh, ñëw ci yonent bi di sàkku ñaan yonent bi wan ko aw yoon ci tawassul Usmaan ibnu Xunayf ci jamono yonent yàlla astaghfirullah ci jamono eh, Seydina Usmaan ibnu Affan radiallahu anhu dafa am ku doon ñëw ci Usmaan am aajo yu fa doon sàkku waaye bu daan ñëw Ousmane daawu ko tal da daan yittewoo yeneeni mbir ba bis mu wax ko Ousmane ibnu Xunayf Ousmane ibnu Xunayf daal di koy tegtal ñaan gi demal nga jàpp nga dem ca jàkk ja nga julli fa ñaari rak'a boo noppee nga ñaan ñaan gi allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabi rahma yaa muhammad inni atawajjahu ila rab inni atawajjahu bika ila rabbi aw atawajjahu ila rabbik fa yaqdi li fa yaqdi xaajati mu ne ko nga tudd sa aajo jàngal ñaan gi nga tudd sa aajo waa ji ñaan gi julli def naa fi léegi jàng ñaan gi dem ci Ousmane ibnu Affan Ousmane fajal ko aajo jagatu xoon a mu ñëw ci Ousmane ibnu Xunayf nag di ko sant di ko gërëm ne ko osmaan de daawul yittewoo li ma koy wax lu dul bi nga ci waxtaanee moom osmaan ibnu Xunayf ne ko waxtaanuma ci ak moom lii damaa fekke woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom am silmaxa bu ñëw fi moom ne damaa bëgg nga ñaanal ma sama bët yi mën a gis ndax awma ku ma wommat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu la neexee nga muñ mu te loolu moo gën bu la neexee itam ma ñaan mu ne ko ñaanal yonent bi ne demal nga jàpp soo jàppee nga julli ñaari rakka boo jullee ñaari rakka nga jàng ñaan gi Ousmane nee na silmaxa bi bi mu demee jàpp julli bi muy ñëwaat fi ñun dafa mel ne mosula silmaxa dara jotu ko bi muy ñëw njàccaar la loolu amoon tawassul boobu silmaxa bi defoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane ibnu joxaat ko kii ci jamono Ousmane ibnu Affan bu doon loolu ak jaamu yàlla la wala shirk la Ousmane ibnu Xunayf saxaabi bu tol ne moom du ko digle te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a digle te waxul woon ne suma faatoo bu ko kenn defati waxu woon waxul woon faatoo bu ko kenn defati waaw kon nag ku wax ne yonent bi gannaaw bu faatoo kenn du def tawassul ci moom yow yaa war a wut aw lay wuy wax loolu te xadis bii ma tudd xadis la boo xam ne ab tabaraani wéral na ko waaw ko wéral na ko wax ne sax xaakim daf koo solo muxtasaran an tariqi awn waaye shabib ibnu said alxabati jële na ko an ruux ibni alqasim mooy bi gën a gudd mooy bi nga xam ne dafa ànd ak qissa bi mu ne wal qawlu fihi qawlu shabib fa innahu siqatun mamun waaw mu ne li li xew ci euh, matnu bi maanaam li ci li ci gën a wér mooy waxu shabib ji te mooy qissa bi ak xadis bi yépp loolu tegtal la ci ne euh, def tawasul ci yonent bi gannaaw bu faatoo kenn terewu ko yonant bi moo jàngale woon tawasul te waxul woon bu ma faatoo bu leen ko def kon nag dañ koy continuer di ko def ba faw incha allah Cheikh Aboubacarin awalan mooy wax jooju nga nett li werul ñi nga xam ne Tabaraani indi na ko ci al-Mu'jamul Kabir gannaaw ba mu nettilee wax jee pare dafa ne wal xadiisu saxiix da ñëw ci loolu insha allah walam yaqul wal asaru saxiix dafa nettali wax ji ba noppi boole ko ak xadis bi nga xam ne moo xewoon ci jamono yonentu alayhi salaatu wasalaam bi mu paree dafa ne wal xadiisu saxiix xadis bi nag lu wér la wax jooju ñuy nettali ci euh, Seydina Ousmane Ibn Affan Ousmane Ibn Affan akbaru min dalik Ousmane Affan da daan tëju nanguwut a recevoir gannaaw go mu gént kii ñëw ne ko euh, mu dem ca kër kële ñëw ne ko demal wax ñaan gële gannaaw loolu mu ñëw Seydina Ousmane door koo nangoo ubbil Seydina Ousmane Ibn Affan mi ñu xam akbaru min dalik waaye avant loolu yëpp sax mooy wax ji wax jooju dafa wéragul te nag isbitil arsha tumanqus wax ji biñ ko nettalee pare boole ko ak xadis bi dafa ne wal xadisu saxi mooy xadis bi nga xam ne mooy silmaxa bi ñëwoon ci yonentu alayhi salaatu wasalaam yonentu ne ko waxal ñaan gi te loolu te loolu sax bi yonentu alayhi salaam di dund la mooy xadis bi te mawdo bi ñuy ni xaas man ak yow mooy ba baad baada wafaatihi kon silmaxa bi yonentu alayhi salaam ne ko kaay ma ñaanal la loolu bu nekkoon tawasul bi bi bi aynihi sax loolu mi ngi amoon ci jamono yonentu alayhi mi ngi dund te Maodo bi ñuy niqaas baada wafaatihi la kon xadis bi nga xam ne mooy silmaxa bi kooku amul place fii ndax loolu ci jamono yonentu la te Maodo bi gannaaw bu fi yonentu bi jógee la loolu ñuy nettali nettali ci Seydina Ousmane Ibn Affan nag loola gusuñu sanad bu wér ci loolu illa an yatiyani bi sultaanin mubin bi sultaanin mubin ndax wax ji biñ ko nettalee pare dañu ne dañu ko boole ak xadis bi nga xam ne mooy xadisu silmaxa bi léegi nag bu ne xadis bu wér na yow dangay ngay jàpp ne lii mu nettali nii moo wér ndax loolu li tax wérul li tax mënul wér dafa bëri benn amuñu ci sanad bu wér wala nga indi ko ñaareel bi mooy Seydina Ousmane ibn Affan mi yonent alayhi salaam yar kooku ëpp na muy tëj buntam nit ñëw ay yoon nanguwu koo jël ba mu dem def tawasul mu ñëw mu door koo ubbil ki yonantu yaroon du kooku ñu nettali ne mooy Ousmane ibn Affan kon euh, sa audio bi mën naa wax ne daanu na ndax amuñ amuñu ci lu ñu mën a jàpp ndax wax balaa ñu ci mën a sukkandiku day fekk mu wér ba pare ñaar moo ci nekk xaddis boobu silmaxa bi wér na ndoom te ne am na ñu ko jam mais ñun dañoo jàpp ne wér na waaye gannaaw bu mu wéree loolu ci jamono yonentu la salaam te nixaas bi mi ngi ci mi ngi ci baada wafaatihi nettali bi ñu nettali ci Seydina Ousmane ibnu Affan kooku wéragul bu dee aaya yële nag waa xam nga aaya yële benn boroom xam-xam bu mag de loolu dina ñëw ci borom ci waxtaan bi incha allah dafay ñëw di waxtaan ci tawasul di di bind lu yaatu ci tawasul ci biir tawasul bi nag ci la indi aaya yooyu nga xam ne dafa am ñu doon ñaan ñu doon ñaan ay yonantu ak i malaaka boroom yi tabaraka ñëw di radd loolu kon aay yooyu fii makaanihi comme sama cinq minutes des na kon Cheikh Aboubacrine euh, ñaari laaj lañu am jëmee ci yow mooy ndax euh, wax jooju ñu nettali ci Seydina Ousmane ibn Affan wér na wala déet ñaareelu laaj bi mooy xadisu silmaxa boobu ñuy nettali ci yonente alayhi salaatu wasalaam ndax loolu am na benn alaaqa ak mawdo bi ñuy waxtaane ndax mawdo bi dañu ko préciser baada wafaatihi bu fekkoon ne li ñuy nettali ci Seydina Ousmane wér na kon xaddis boobu dina am njëriñ ndax xaddis boobu kon dafay dafay nekk baax baada yi mais comme bële wéragul comme bii nii mënul dugg foofu waaw kay sëriñ Jibril waaw xam naa moom ñëw rek ne ne ne ne li nga nettali nii wérul loolu yomb na lool seetlul bu baax ñu ne euh, Tabaraani indi benn xissa ba noppi xissa bi mu indi ab xadis ci suufam nga xam ne ñoo ànd xissa beeg xadis bi ñoo ànd Usmaan ibnu moo jàngal waa ji tawassul bii nga xam ne yonent bee ko jàngaloon silmaxa Usmaan jàngale ko Tabaraani nettali xissa bi nettali xadis bi ba noppi daal ne saxiix ñu ne ñu ne xadis bi la wax ne saxiix demal nga xoolaat tabaraani loolu wax ju saf xorom la loolu albani moo ko wax mais buñ buñ demee ci kanam affaire bi dana gën leer ci sa bopp xoolal alxaakim xam nga lu mu wax alxaakim liiraloon naa la ko léegi dafa wax ne wal qawlu fiihi qawlu shabib fa innahu siqatun mamun qawlu shabib mooy xadis mooy xadis bu gudd bii nga xam ne la tabaraani solo mu ànd qissa bi لول لا وخني والقول فيه قول شبيب فانه ثقه مامون لول ليرنا تا ميم لولو الحافظ المنذري ويرل نكو سي الترغيب سي نياريل خاج بي 606 الحافظ ابن حجر الهيثمي ليرل نكو سي مجمع الزوائد تا نياريل خاج با ويرل نكو موميتام 272 لغي نك سو فكه xaafis alxaafis xaafis bii ñuy wax xaakim da ngay sa da ngay da ngay sànni wax sukkandiku ci koo xam ne du xaafis te muy albani wala su fekkee am nga xaafis boo xam ne moo wax li nga wax yow nga wax ko waaye man xamuma waaye ay xufaaz wéral nañ xadis bi bokk na ca muy alxaakim sanad xista beeg xadis bi yépp lañ wéral naka noonu ibnu xajar alhaysami qissa beeg xadis bi yëpp la wéral naka noonu alxaafisul mun mundiri ci attarxib léegi nag sanad bi ngay laaj ma jox la ko sanad bi boo demee ci dalailu nubuwa lil bayhaqi daf koo indi min tariqi yaqub ibnu sufyan alfasawi mu wax ne xaddasana ahmadu bnu shabib ibnu said an abihi عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن عمه عن عثمان بن عثمان بن حنيف sanad baa ngi noonu sanad boobu lan moo ci sikk dama bëggoon nga teg sa baaraam ci fi sikk si nekk ci sanad bi lu tax wax ji kenn du ko nangu lu tax wérul ci sanad bi la wala ci matnu bi la bu dee ci sanad bi la tegal sa baaraam ci sanad bi fan la wérewul lan moo tax wérul ci sanad bi su ko defee ñu continuer léegi nag li ngay wax naan Ousmane ibnu Affan ëpp na di def loolu loolu ba tey Albani moo ko wax ci at tawassulu xaw ma lan at tawassulu wal wasila xaw ma ba tey loolu Albani moo ko wax ma jox la benn xadis ci xaswatu xandaq dugal naa ko noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ba guddi gi sori yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ay sahabam kan moo may demal kan moom ay demal ci yéeféer yi xoolal ma leen luñ nekke asalullaha an yakuna rafiqi fil janna bu boobaa ma ñaan yàlla def ko muy sama àndandoo ci aljanna saxaaba yi kenn jógul ngir lan ngir xiif bu metti ak ak sedd bu metti akuk tiit yonent bi baa mu war ko kenn jógul yonent bi door a wax xusayfatu bnul yamaan ne ko jógal dem léegi kay xanaa kon dañ naan saxaaba yi ëpp nañu yonent bi di wax loolu kenn jógul nit mën ngaa am ci moom aajo ku mel ne Ousmane ibnu Affan ak responsabilité bi mu yenu woon du la tal ndax yeneen i aajo mën naa am yeneen i aajo yu gën a nekk farata sa aajo njit lu mën a doon da ngay am ay aajo yoo xam ne du dangay ngay tànkablu nit ñi waaye da dul mën a defandoo lépp loolu la waaye du tànkablu doye dal moo tax kon loolu Albani wax te nga toxal ko màbb na li mu wax ne wérul nag looloot ba tey xam naa ci moom ngay delluwaat léegi maa ngi lay wax nga sa baaraam ci fan la fan la fan la problème bi nekk ci sanad bi ba tax xadis bii ñu war ko wàcc wala bu dee wala ba ba tax qissa bi ñu war koo wàcc fan fan la problème bi nekk amma li ngay wax ne du ci gannaaw yonent bi la lii kay ci gannaaw yonent bi la ndax ka fekke woon ba yonent bi di jàngale tawassul bi moo ko jàngale waat gannaaw bi yonent bi faatoo ñu di ko def lu tax mu di ko jàngalewaat bu doon yonent bi dafa ne lii bu ko kenn jàngalaat kenn bu ko suma fi joge bu ko kenn defati bu yonent bi waxoon loolu kon usman ibn Xunayf du ko jangal kenen waaye yonent bi waxul loolu jaamu yalla go xamna dañ nan bu fi yonent bi nekkee nañ ko def bu faato nañ ko ba loolu mom wax deug yalla xamna ne sama xam-xam bari wu ci waye ma ngi lay wax nga ma ngi lay ñaan nga wan ma fan la problème bi nekk ci sanad bi fu problème bi nekk Cheikh Abou Bakirin ay lay nuyu waaw defal nak rek wallahi wa rabbi kaaba gusa guma lu albani wax ci lii albani demaguma sax ci moom defal nànk rek euh, xam nga lii nga dàqee albani ndomte ne dewuma ci moom ak ñeneen alhaytami moomu nga wax laysa fiqat laysa fiqa bi lii loolu beneen majaal la ibnu hajar alhaytami bi lii laysa fiqa daanaka ñi nga tudd est-ce que ku la wax fiqa lañ ci man comme ni albani ak keneen ñàkk nekkee fiqa ci yow kon euh, euh, ñooñu bu ñu wéralee wax ji ñooñu duñu fiqa ci man xam nga wax ji dafa leer wax ji dañ koo boole ak xadis bi nee naa la xadis bi ci boppam moom moo wér euh, boroom mucjamul kabir at tabaraani Tabaraani waxul ne asar bi dafa wér dafa ne xaddis bi ne asar bi moo wér hunaaka xilaafun bayna asar bi moo wér wala xaddis bi moo wér te wax xam nga wax Oustaz bu fekkee dafa am dafa mën a ixtimaal lu bëree bëri doo ñëw rek ba bëstal ko noonu parce que asar bi bu boo bu àndee ak xaddis bi doo mën a jëw sukkandiku ci xaddis bi ne asar bi wér na xaddis boobu ci silmaxa bi ñun amuñu sikk sàkk na wér na fii boroom xam yu weren fi boroom xam-xam yu euh, euh, euh, werante mooy wax jooju ñu nettali ci Seydina Ousmane na Affan ndax li ko teree wér dafa bari Ousmane na Ibn Affan ëpp na muy tëj buntam nit ñëw du ko ubbil ba nit koo nga def tawasul mu ñëw mu door kaa ubbil Ousmane Ibn Affan akbaru min zalik ànd ak loolu asar bi ci boppam dafa wéeru borom Mu'jamul Kabir waxul ne asar bii ñu nettali ci Seydina Ousmane Ibn Affan moo wér wax ji ngeen wax wax mi ngi nii ma tiim xaddis boobu ngay wax nag wàcceel ñu ko fi wàcceel ñu xaddis bi bu fekkee jege la nga ñu ko fii ñu xool wala ñun ñu wàcceel la ko. Cheikh Aboubacrine non wax ji moom bala ma cay ñëw bala maa ñëw ci wax ji na bale leer ba pare ndax bale jubóoguñ ci. wax ji nga xam ne laa yusminu wala yuxni min juuxi bala maa ñëw ci bii na bare leer ba noppi sa audio boobu daanoo euh, damay bañu num tëdd dañoo yéex a commencé nag dañoo yéex a commencé waaye fi ma dugg doo ci génnee noonu de est duñu teg fii sunu loxo ba ba na mu tuddati waaw Seydina Jibril waaw man nag bu ma soñoon dañuy dañuy continuer débat bi ndax am na yu bari yu war a feeñ yu war a feeñ ñu dugg ci sanad yi bu baax a baax waaw dugg ci sanad yi bu baax a baax euh, wax naa la euh, ay boroomi xam-xam yu mag ay xuffaaz alhaysami almundiri alxaakim yoo xam ne wéral nañ ko ci sanad boo xam ne bu wér la ndax yow sanad bii nga dugal sax bi ma liir a ko gën a wér ndax sanad bii nga dugal am na coow bima ma dugal nag kenn daa amul fokay jaar yaqub ibn sufyan ahmad ibn shabib ibn said ruh ibn al qasim abu ja'far al khatmi abu umama sahl ibn hunayf usman ibn hunayf sanad la bo xamne ken amul foo jaar ndax yow sanad bi nga dugal dañuy wax ne dañuy wax ne ibn wahab momi bu solo ci shabib ibn said du wér day nek day nek munkar moo tax sanad boobu tudduma ko xoolal sanad bi ma indi xoolal sanad bi ma indi bokkul ak sanad boobu ngay wax sanad bii ma indi boo demee ci dalailu nubuwa lil bay da yi ko fa fekk léegi nag man bëgguma débat bi ñu ñu ñu daal di koy tëj noonu kese kese kese damaa bëgg nga wax ma ne ma xissa bi nangam moo tax wérul xam nga ay xufaas wéral nañ ko lu ma wax rek dama ci duut baaram ay xuffaas wéral nañ ko léegi nag yow man dama bëggoon nga wax ne xista bi nangam ji moo tax wérul diw mii moo tax wérul su ko defee ñu daal di ci dugg kay ci lool ba ba fi mu toll nii dugguñ ci débat bi dëgg dëgg dëgg ba fi mu toll nii borom xam-xam yu mag yi nga xam ne dañoo saxal tawassul ci yonent bi gannaaw bu faatoo ba léegi tuddaguma leen ba léegi tuddaguma Abdullahi Alxaakim boroom Abu Abdullahi Alxaakim boroom al Mustadrak tuddaguma ko آه، الامام الحافظ ابو بكر البيهقي كي نيكو ساخال توسل غناو بي يونت بي فاتو اك جلال الدين السيوطي كي نيكو ساخال لا بوكو نكا نون ابو الفرج ابن الجوزي كي تيرم بوبو دي الوفا مومي تام سي لا بوك كي نيكو ساخال لا بوك القاضي عياض مومي تام سي نيكو ساخال لا بوكو نكا نون الامام الشيخ نور الدين القاري نيكاي واخ ملا علي القاري مومي تام كي نيكو ساخال كي لا بوك ak ahmad shihabuddin al khafaji momit ci la bok naka non shihabuddin al qastalaani ci la bok naka non abdul baqi az-zarqani ci la bok naka non abu zakariya yahya an nawawi ci la bok ak ibnu hajar al haythami ak ibnu hajar al haythami ak ibnu hajar al asqalaani ponkal yeb ay xofaw lañ ci ñi saxal lolu ci lañ bok naka nonu ibnul jazari ad dimashqi moom itam ca la bokk ba ci ibnu kasir itam ca la bokk <laughs> fi mu toll nii dañoo duggul ci débat bi carrément moo tax mënumaa faram-fànce loolu yëpp mais li mooy sàkku ci yow rek benn affaire la mooy qissa bi nga wax ne wérul nga wax ma sanad bi daa am problème wala lu taxu xam nga boo ñëwee ne wérul ma ñëw ne wér na nga ñëw ne ma wérul ma ne la wér na débat bi du jógee fi mu nekk da nga naan wérul diw mii moo tax wérul amma soo ne Ousmane ibn Affan nag ku toll ne moom du tëj ay buntam ñàkk a faj aajoy nit ci responsable bu mel ne Ousmane firiwul tëj tëj say bunt delluwul lu dul ci occupé ndax li mu koo xam ne soxlay jullit ñëpp yow ci nga nekk du ku ñëw rek nga daal di koy fajal aajoom ci sensi loolu foofu dong la dellu yonent bi wax na saxaaba yi ne leen kuy kaay demal ma ca noonu seeta ma lañ nekke ma warlul ko aljanna saxaaba yi ñëpp toog ma warul ko day ñëwaat kenn du ko rey saxaaba yi ñëpp toog ndax boobu dañoo xiif dañoo tiit dañoo liw léegi benn waay bu jógee fee daane saxaaba yi ëpp nañ yonent bi di wax ñuy ñuy toog noonu fekk da dul xam xaala ba na mu demee moo tax daal man su ma sañoon da ngay teg sa baaraam ci fi fi problème bi nekk ne sa ne problème bi mi ngi fii lii moo tax xisa bi wérul Cheikh Abou Bakirin bala maa yeggali audio bi waaw comme ni ma wax léegi rek naa teg sama loxo ba suba incha allah ñu jàppaat ko wax jooju ci Seydina Ousmane Ibn Affan amul benn benn benn sanad bu wér ala wajil ard amul sanad yi kay jërul yàkkamti yëpp dañ ko rajaxe ba mu mat sànni ko fële mais nag balaa loolu ihtimaalaat yi nga xam ne mi ngi ci asar bi loolu lañuy ñuy indi ne lii mënul dafa jégewut a wér sax nag ba noppi nag ñëw nag ci sanad bi ak ñi nga xam ne nee nañu wér na ñu tax ak su sufiyank yooyu nga may tudd nga xam ne ñi nga ma tuddal léegi am na ci koo xam ne mereel naa ko ndax li mu def ci benn téere ñi ne wér na ak ñu ne wérul lan mooy seen dalil sanad yi moom jërul yàkkamte dañ ci ñëw waaye asar boobu ci Seydina Ousmane ibn Affan wérul lan waaw maa ngi gàttañ lu fii insha allahu taala ba suba ñu teel a commencé <laughs> waaw sëriñ Jibril sëriñ Jibril maanaam bëggoon bëggoon naa ñu continuer daal bëggoon naa ñu continuer ñu continuer yi yaa ngi may def yëfu alpha yi de <laughs> yëfu alpha bay yi <laughs> waaw moom moom moom comme moom kay man damaa bëggoon nga rajaxe ka rek eh, ñi ngay tuddee ay sufiyanke ne sufiyanke yi ma la limal ah man kay bu ma limee ba pare bu ma jëlee ci mu fassiruuna yi ñi nga saxal ci mu fassiruuna yi yaakaaruma da nga dese kenn suma deme ci muhaddisuna yi jël fa ñamay jël yaakaaru mu da nga dese kenn kon xeyna ñom ñoom ñëpp ñoom ñooy ay suufiya xëy ñom ñëpp ñoy ay suufiya ana ana kon ñi ngay am en tout cas ibnu hajar al asqalani mom kenn du dem bako ko kenn du wax sax ci walu bukhari te do tuddu ibnu hajar al asqalani ibnu hajar al haythami naka noonu ibnu hajar al haythami momit naka noonu ibnu kasir naka noonu ak al qurtubi li mu li mu ma li mu ma ñëpp <laughs> liste bi man bi ma yor nii bu ma ko tàllaloon fii mat na cinq mètres yoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ ñii ay muhaddisuuna lañ ñii ay ay euh, ñii ay ay mufassiruuna lañ ñii ay muarrixuuna lañ nga xam ne ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci ne euh, sunna la tawasul sunna la ba léegi bi yonent bi dund sunna la yonent bi faat bu tax sunna soosu dee sunna soo sunna la ba léegi ndax yonent bi néewul sunna la su may dund su ma dee dootul sunna loolu nag wax dëgg yàlla man yaakaar naa képp ko am xel rek war nga koo xam mais nag man problème bi mooy sanad bi dafa mel ne pindu teen dafa mel ne pindu teen boo xam ne oustaz Jibril du ci dugg mukk maanaam moom day wër noonu rek day wër naan na sanad bi wérul bi wérul ixtimaalaat yi wérul waaw man kay wérul ji moom booy na samay nopp mais li ma bëggoon mooy nga teg sa baaraam ci fenn ci sanad bi ne lii moo wérul ci sanad bi loolu moo tax xisa bi wérul bu boba soko inde muy lu ken meunta dindi bu boba dana ci and ak yow waye nak dong la wax deug yalla ma indi sama xissa bi geussu ba sonu ñew nga ne ma wérul rek ta do ma wax fi wérul fu nekk ah, <laughs> lool nak wax deug yalla du du neex de ah, du neex de red xamna mom xana kay kon suba da ngeen di baye rek ma ma ñew ma ñew indi dess wi ah, ma ñew indi dess wi waaye man bo duggoon ci sanad bi ñu mëna dana neex lool jibril <laughs> boo ci duggoon dana neex lool te xam-xam bu bari dana dana fi feeñ ndax man euh, xarab bi ma ko jële woon rek mooy xaradu taalim ndax léeg ngay wax ñu di ko weddi ngay indi ay dalil di ko saxal loolu ñu bari mën nañ cee dégg lu bari bokkul ak kenn rek taxaw di wax te kenn ko weddi loolu moo tax mu ñu jaa def ko ci munaqasha ci lay ëppee njariñ waaw su ko defee kon xam naa ne moom ay boo ma taxawee foofu rek comme saa ji wérul rek la ma wax wérul xam ne waxoo fan moo wérul sanat bi ban fa problème bi nekk lii muy indi yëpp mooy la albani dajale ci téeram boobu atawassul wa anwaahu waaw yo loolu dong la même boo ko fekkee ci beneen téere parce que yooyu moom la wahabi yu ne di jël di ko toxalaat muy kii même boo demee ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi loola nga fay fekkaat li nekk ci albani ngay fekkaat foofa amul benn soppeeku soppeeku xanaa loolu buñ làkk soppi làkkiin wi rek mais lam wax moom la ñuy waxaat te loolu dafa yomba dafa yomba dafa yomba dafa yomba màbb dafa yomba màbb ndax albani ci boppam mabda boobu mu tëral sax jaaru ci waaw mabda boobu mu tëraloon pour daa jikki bi jaaru ci suñ ko demee danaa la indil yeneen xadis yoo xam ne ñi albani di bañ ci sanad bi ñoom ñëw nañ ci sanadu yeneen xadis albani wéral leen mu ñëw ci sanadu tawassul ci yonent bi gannaaw bu faatoo mu dàq leen te ki mu wéral mooy ki mu mooy ki mu wéradil loolu nag wax dëgg yàlla <laughs> di wax dëgg de sëriñ Jibril lii sunna la bi yonent bi dund bu faatoo nag moom dootul sunna araam na ah loolu loolu xoromu lool